alors Turando sañse merci beaucoup Aïda. naka naka naka arena bi da nga ñëw enjoy. waaw ma ñëw enjoy mais après incha ci kanam danaa yéeg joué ak Youssou. nan nga gisee première fois artiste Youssou Ndour ñëw inauguré naa wax inauguré ko si artiste mu def ko man du lu ma bett parce que nga xamante ne day dem Paris feesal Bercy. ah xam du salle bu ndaw donc su ne day woote Sénégal Arena donc lu nit ñi war a mën a gëm la. quinze mille places sénégalais jóge fu nekk région bu ne ñëw fi tase bi pour cette année nga tey li ci particulier mooy tey permettre na ñi région yi nga xamante ne ñoom ñoo wër euh, arena bi comme ay Thiès comme yeneen dëkk yi dañuy am possibilité déplacé wu ak péage bi pour ñëw seetaan si. yaakaar nga ni spectacle 40 morceaux yu mu répété dina ko fi est-ce que ëpp na 40 de ëpp na 40 ñun fan yii kii lañ. kii fan yii kii nekkoon armée lu métti lañ doon dund armée lañ doon dund mais bon c'est toujours un plaisir. Ah, waaw métti woon na nag parce que tout moom tout le temps dafay bëgg di innover di def lu bees pour di di di bëggal ay fansam et que di ngeen ci gis léegi que ne spectacle bu bu extraordinaire la monté. mais yow namm nañ rek sa spectacle. franchement grand théâtre bu ñu ko defar ba tey gisaat. gis nga gis nga gis nga mais bon incha allah ñu ngi ci liggéey bi. et que dinañ dinañ ma gisaat léegi ah, ci 2002 bi ak album bu bees tàkk. kon ñu ngi xaar album bi 2022 2022 bi incha allah buñ ci duggee rek album bi dina génn bu neexee yàlla. monsieur nga àndal waaw